même ñi mujj ñëw bëgg dem sax créé nañ mouvement waaw xam nga moom d'abord na xoolaat règlement intérieur parti bi amul wala statut bi amul fu ñu ci prévoir euh, porte-parole adjoint kon kooku duma ko tontu parce que war na waxal parti bi. mu jàpp ne APR amul benn yëngu-yëngu bokk na ci lu tax mu taxawal bi le mouvement. defuñu courant mouvement lañ def boo xam ne la ko tax a jóg mooy def plaidoyer maanaam di fàttali waa parti militant yi ni lii lañ war def buñ ci bëggee génn. ñu bëgg parti bi ci jàngalekat yi jigéen ñi ñu organiser ko diaspora bi ñu organiser ko. ba mu nekk parti bu taxaw mën a def liggéeyam jàppale président la ci liggéey bi mais surtout la l' ngir pour élaborer un projet pour 2024. président bu mouvement Manko taxaw sunu APR di jox dig daje sénégali alxamis bi mu ko defee mu génn texte yi daal di dëggal lii di mouvement am. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Pape Fara ñu ngi